leen ci kanam écran bi nii ñoom ñooy waa FMI maanaam waa banque mondiale ñoom nee nañ depuis bi Macky Sall yoree Sénégal ba léegi maanaam comme li ñoom Ousmane président Ousmane Sonko ko wax deux mille milliards yoo xam ne bokkut ak li ñu leb de ay milliers milliers de milliards la ñu leb waaye daf see am lu ëpp deux mille milliards yoo xam ne daa réer mër gars yi dañ koo lekk dañ koo dañ koo seeyal léegi FMI nee na li Ousmane Sonko doon wax ba saay saay soo génnoon di wax bañ jàpp leen. nga xam ne kenn tuuti seen tur daanaka ñëw indi focus bii épi bi nee na loolu dëgg la léegi nag sama mbokki baykat yi yéen laay waxal wax leen kii lu mu wax si anglais jeeg bu ndaw bii jeegu tubaab bii nee na maanaam dafa mel ni rek yéen ngeen maanaam bitig bi ngay dem bitig bi sikoñ bi nga xam ne da ngay dem si bitig bi di jël naan sama papa ne na nga jox ma mburu sama papa ne na nga jox ma sama yaay nee nga jox ma pompiteer soble tamaate ñoom seen lëjum yooyu nga xam ne bu weer bi dee papa day dem fay papa nag bi mu ñëwee war a fay dañ na ko bitig bi jeex na waaye dem na ba demee si kër gi mu fekk doom ya dee léegi nag doom yi la la war a dundal doom yi ka daan ñëw di ko leb si bitig bi di seen di di yaay ji wala di wala wala wala magi papa ji wala nijaay ji wala jarbaat bi wala tante bi daan dem si bitig bi di jël dund bi moo ko lekk kooku mooy Macky Sall léegi bitig bi dee na dara nekkatu fa xale yi dee nañ te bor baa ngi fi loolu la ñu Macky Sall def loolu la FMI wax yeegu tubaab loolu la ñuy nettali noonu moom la bind léegi nag te alal boobu mooy li ngeen daan engrais bu seer bi jiwu bi nga xam dañ ko waroon a jënd dañ leen waroon jox jiwu bu doy gerte gi nga xam dañ ko waroon a jënd loolu yëpp ñoom dañ koo lekk mooy nag mi mille francs ak deux mille yi ñu leen daan solal ay tiset ak kaar yi ñu daan luyee di leen si dugal ak pancarte yi ñu daan jël di leen ko jox ak dëkk bi ñu doon wax naan ñoom ñoo ñooy borom dëkk bi maanaam sàcc si ñooñu foofu lañ def xaalis bi takk si jabar jënd si kër bitim réew luubal def lu ne def lu bon rey nit loolu la ñuy def moo tax élection yii di ñëw le 17 novembre bii dafa laaj ngeen dem jëli seen carte yi ngeen voté gën a sanctionné Macky Sall beneen bi deuxième information bi mooy Macky Sall Macron da koo daq maanaam France xam ngeen état intérêt état du xarit Macron bi muy xaritoo ak Macky Sall intérêt la woon bi mu ko dàqee mu yaakaar ne Macky Sall dana ko jël bi Macky Sall bi ko sénégalais yi kajee Macky dafa yaakaar ne Macky Sall mën na ko doxal dara dana ko jëriñ dara si niveau international pour di ko yónni yooyu muy cogg nga jiite réew 12 ans bàyyi réew moom dem di dem si ay tubaab di leen doxal ay di leen cogg ñooñu dàq nañ ko nee nañ ko yow amaloo ñu benn njëriñ. du relation internationale du dara lu dul ñu lay daggal bii avion ak di la fay weer te état la ñu yor Basirou président Basirou Diomaye Faye dafa waxoon Macron ne ko tànk yaa ngi nekk ak Macky Sall man du liggéey ak yow léegi nag Macron intérêt mooy mu liggéey. Afrique si 50 50 50 50 président Ousmane Sonko bi nga xam ne moo am dëgg tey maanaam boobu la France di nangu ak Sénégal wala leneen waaye Macky Sall moom di leen di yàqal. di leen wax ne sommet francophone bi am bi war a am c'est la première fois président Sénégal du fa dem muy Bassirou président Bassirou Diomaye Faye macha allah France yéen am fula nit bu la jëriñut gis nga àdduna lépp njëriñ la. Macky Sall yàgg naa leen wax amul xam-xam français yi duñu ñu xaritu Macky Sall xaritu intérêt Sénégal moo ne newoon seen xarit ngacc suñu suñu suñu euh, pétrole jël suñuy or jël suñu gaz ba pare nag muy rey askan bi pour lu neex France pour mënoon fi toogaat defal leen ñu bëgg léegi France nee na ko amatoo décret mënatoo signé Bassirou Diomaye Faye moo yor lépp amoo relation internationale amaloo njëriñ sax àll ba dàq nañ ko Macky tey jii la ko France dàq na ñëpp xam Sénégalais yëpp. kon ñun sénégalais ñun ñoo des nag ñu dàq nag lépp lu bokk ci système bi mooy le 17 novembre bi dañu focus nag mais patriotes yi napp ngeen ñu nag barki yàlla vidéo sax moo koy bëgg a def mu damay xalaat dama leen di xalaat ba pare parce que Issa Diène yéen da ngeen maa yeb Issa Diène def na live deux heures temps def leen ngeen xool ko barki alxuraan kenn newu ko focus te tontu na jaar seen tour Babacar Sadikh Diop même chose yéen xanaa ma ngeen yeb <laughs>